asalaamaaleykum maa ngay nuyu mbokki déglukat yi si Sahel Network TV di la gërëm yow Abdoulaye Souare si sa teewaay fii di si kontaan trop te man maa yow suñu diggante yàgg na waaw history of warriors moom waa dëgg la si gàttal xaleel laa woon waaye tur bi mu ngi jógee si kuñ de ooyee honorable Moussa Siñaan moom moo joxoon gars yi turi FC Warriors waaye suñu ay mag ñoo fa nekkoon di fa play ba ñun nii nuñ fa play ba baay ba ñëw nekk head coach bay coach suñu ay raka. Hmm. team bi first first time sax FC Dombel si la tuddoon waaye gars yi dañ demoon qualify rounds nuñ koo miig soo bu gars yi prepare te di following year bi fona ñu dajaloo ñoom it neen ñu waxtaan moom si la change tour bi mu tuddee ko FC Warriors. man maa ngi start suma début waaw maa ngi ko def year 2003. Sila makes my ma when I play FC Warriors. Year dama That my just Jahal school like wow. That my just Jahal school like my play. My first game for red card la Warriors amoon de ma dugga second half waaw mun naa koo fàttaliku vividly red card la amoon kacam suñ goalkeeper bi moo amoon red card so man maa ngi toogoon si bench bi sax siga man fa lu ma mun a ku mooy kenn si beñ bi ku de ku toogoon amoon Keba Aidara I don't know moo ma taab rek ne ma booy red card am na rek ma jog ma changes with them non la play Warriors ma duga ma play way time boobu nak mangi won I was very very young wa lol mom mun naa koo ko torop wa 18 19 dah. 18 wa di duga si 19 ye non man man musuma wax si yëfi football dama ko yaakamti woon dégg la won dama ko yakamti won match buma ma ah, waroon bu ma waxoon ne pour ma dugga start maaj boobu noonu gars yi understand ñu woon de dama bëggoon match bi three o'clock lañ ko doon pile so dama bëggoon nit yi teel fees si paak bi ñu gis ma maay play bés boobu laa waxoon ne comme second half laay ñëw waaye début bu moom bu ma ko méeg loolu noonu nee naar yi da ngaa dugal as far as ne red card am moom mun loo toog da ngaa dugal by force da ngaa dugal nga play boobu noonu la fa demee woon lox loxu ma woon de maa ngi ko owoon a yaakamti sax man grippe du woon suma problème dama tuuti woon nag in ba pare comme time boobu noonu ñun ponkaluñu woon man amoon nekkuma woon borom yaram maaj boobu noonu second half la loolu second la ñun ñoo jëm seen la woon maa ngi ko peraloon bañ demee penalty sax penalty la maaj bi eenee woon waaye eventually after jëm seen ñoo ñu win mun naa koo fàttaliku vividly du caaxaan comme man ñi ma player wala ñu fa jaar yëpp in total dañ bëri waaw mun naa see lim ay quelque rek suñ lijëm si moom ñu bari ay squad players comme FC Waros doo ko tudda nga génnee si Daouda Ba doko ko tudd nga singul wala hajje Tunkara wala nga genesi Chongel Master wala nga genesi ñom lay Laye Johnson ñi ñoy co-founders of the team ñom ño fa nekkon nyom dorin ñom ño qualify lo team bi sax waaw ñom ño qualify lo team si gatal rek ñom Demba savé jep jaan nañ fa si gatal dal, si ñuma la mëna limal tuti ku lim do do do do dem matal duñ daan farala tok nak first round FC Warriors mom comme qualify du daan nekk problème understand comme depuis bu fi génération boobu noonu jógee comme di élite génération laa ko mun a ooyee comme génération ñoom Daouda Ba ñoom Hadjee Tunkara buñ fi jógee pour nga bilaat lu mel noonu daf daan jafe torop torop torop daf daan métti waaye comme ñun buñ ñëwee woon man suma maas yi man ñun play nañ final 2006 waaye dañ ko ñàkk waaye comme dañ daan am difficulties comme difficulties bi lu ko daan waral comme ñàkk a Lokra rek waaw waaye FC Warriors du daan ñàkk a daan lokki pour aga findan wara aga way every year mom gom gom bi da fade neka support bi da fade neka waaw way duna muna aga final lu bari mom way tamit man suma generation man mi tok di wax ni man plena final ak McDonald United te lol year 2006 la won way si la gejon nak si len gejon na dem final man nak waaw si motivation bi mom lolou mom dina ci taxaw wa ci lu bari because mbolo moy dole si lo muna duga su unity amé da ngeen a li ngeen buga yéen ñëpp di xàcceendoor di dóoreendoor bàyyi foos li ngeen a dem uti da ngeen koo am dem warriors atam bi final bi nii noonu la ba nga xam ne comme team su nekk area bi boor bi nii yëpp ay sympathisers lañ woon ay fan lañ woon la gaay tontu after di support team bi holy wow, loolu moom motivation bi mom, it was all about unity waaw ñëpp di xàcceendoor di dóorandoor mag ndaw góor jigéen raka xaleel ñëpp ñëpp a si jàppa ñëpp ñëpp ñëpp si unity fu mu amut pour loolu noonu mu mun a dem kanam dafa jafe torop because FC Warriors comme yàgg naa si team bi nekk naa fi fan nekk fi player be nekk fi coach so FC Warriors comme at bii li ma fa gis comme daf ma delluwaat si golden generation bi waaw at bii li ma fa gis daf ma delloowaat si golden generation bi moo tax mel ne la mbooloo mooy doole man suma booba li tax ma def suma booba coach mais bi ñu bëri duñ ko understand man tooguma rek nekk ak coach comme coach bi mais bi lu doon lu doon nelaw si man la waaye man after comme football bi mënatuma ko woon a def cause dama am injuries xëy na gars yi duñ ko mën a understand man dama am back pains dama dee am severe back pains yu ma dee disturb te goalkeeper xam nga ne goalkeeping yombul goalkeeping da danga need sa whole body parts so bu ma toogee 2015 xaw ma 14 15 daal laa toog ma ne man du ma mën a tee play foot si foleen year bi sax ma woon coach man maa ngi nekkoon advisor comme si team bi nii because time boobu noonu suma best friend suma boy Keba Ras suma player Ndoral FC Warriors moom moo amee woon team bi so after Keba Ras bu mu amee team bi moom dafa toog comme jobam bi may ko woon time understand bu ko jobam bi may wutoon time so amuñ kenn ku toog koo xam ne mun naa step in nekkul ne coach si dañ ko ñàkk de waaye ku waroon na mun a step in by that time te emergency la woon. rek man ma tekoop mantool bi noonu la demee waaye man bi ma tekoop mantool bi sax moom si boppam style dafa bokk si technical team soo affaire yi doo doon mën a xam man maay coach wala moom wala moom mooy coach wala man waaw. foog naa ne comme Keba moo gën a am discipline ni Keba bu mu doon door si yi fi coaching yow man maa yow bokk nañ ay place yu bëri yuñ jaar si yi fi coaching waa tempérament moom loolu nekkul man du dee nekk a mer comme man noonu laa bindoo kon niti xadar laa understand du ma dee mer comme suma ma voice sax comme ñu bëri dañ ma dee ko dañ dee jaawale Kéba mu mer ak Kéba bu mer mais bi comme su ma tempérament moo ma dee yóbbu si loolu wante fo naa nawetaani laasiya bi waa si ñu gën a am discipline laa bokkoon de si si si si technical side si ñu gën a am discipline laa bokkoon waaye wenn times of times of ma war a joxe comme suma commande si biir fil bi non boo moom du ko dee tolérer dama jóg wax comme at that instant li waral ma war a wax waaw noonu laa doon doxalee waaye last year moom si ñu gënoon a am discipline as a coach laa bokkoon wax dëgg fa yàlla. fine bi moom dinaa si ñëw taxaw tam ma joxe si tuuti tuuti waxtaan fine bi ñoom luñ ñu bindal mooy comme ñun suñ président yi team bi waaw moom indicate nañ ko si second li ñu ne dañ léet si final bi boobu noonu tam indicate nañ ko si ak taat li ñu ne dañ doon tuur njiir yi foofu noonu boobu noonu indicate nañ ko si. fine bi si yooyu la woon. waaw roughly daal ñun fay nañ comité bi eighteen thousand dalasis eighteen thousand dalasis waaw su su ma ko su ma ko bëree break down man ñu ko gaay bindee waaw benn bi ñu ne suñ président yi tiim bi moom he is part of it second ñu ne dañ leet si second final bi taat li mun naa laa indil leeta bi sax about njiiri tuurante yooyu noonu yu doon happen ñu ne si final bi foofu la ko gaay bés waaw ñoom si seen loi ñu ne genuine finance la waaye man comme lu ma dee advocate fo comme soo nekkee committee nga liit nii comme soo faynee tiim comme tiim bi bina la letter daal comme si accordingly comme mu bina la letter of appeal wala comme letter of ñaan comme dama dee bëgg a ñoom ñuy seetlu loolu tam di ko seega bu baax di seetantal understand comme su xalee diis comme ñu xar la koo waañil tuuti waaye waxuma comité bi ne ñoom buñ di fayal comme loolu noonu ñoom si seen constitution la bokk après maa ngi ooj team si tam comme ñun buñ di tooñ understand comme soo tooñee rek lu waa dina la dal waaye li ñoo wax comme ñoom ñooy suñ faada fi ko si lu nekk ñoom ñoo ñu ëmba ñoom ñoo ñu njaboote comme yu bari comme nako ko gars di seet rek ñu seet nu moo demee comme ni mu dee gën a minimale comme su xaasee rek daf dee métti te yow yow mun ngaa understand ne yow nawetaan yow team si nii nekk si nawetaan bi yëpp duñ dee am xaalis xaalis yi team si yu mu dee jógee yëpp yow yaa ma gën a xam ay flopping money la lee nekk dajale. ñëpp dugal si ñii di nga am ay borom xaalis bu nekk si tiim bi wala nga am kenn koo xam ne dafa dee bugg a def si tiim bi affaire bi noonu la lay demee. ñoom ñu ne affaire yi njiiri la mooy njiiri. nawetaan dafa am lu mu baaxoo yow fii nii amul benn nawetaan tiim buy nekk fii nii di dem si nawetaan yow ngeen ne doo dee dégg ay wax yi ne paa bi ay wax yi ne kii tuur nañu butéel wala def na lii wala def na la man when it comes man man loolu noonu man duma si lay xam dara ji man football lañ ma santa man dem si bi train suma team lol la ham pick suma eleven lenen lu def yow mun supporter mun na ñew indil la dara si team ngeen ko yow ayo bu mu man ñoñu noonu don def lolou non man taay mang mang si dressing room bi santuma ken mu def li wala dara non la lay demee yow ya ma gëna xam football yo mi ma tok fi ni dima interview ya gëna ham xam football football afrika Africa si boppam in general mo baaxo lolou ñu la ay pa bi wala ki tourna fi li wala ki sulna fi li wala ki defna fi li man bic laa amal affaire dem seet suma tiim train leen jox leen man require système bi taba suma élève loolu duma ko dee jóg loolu duma ko dee laajte sax man bi man man suma coaching ni ma dee doxalee mooy man suma concept laa dee demee dëgg la dama dee déglu advice ñu advice la nii naa ka waaye concept bi ma doon demee mooy lii laa bugga eleven bii laa bugga mu demal ma si game bi eleven bi nii laa ko approché su ma demee training ground tamit li ma soxla si team bi li ma bugga noonu laa ko approché training ground ba pare gém par game game bu ma dem ma xam ne lii nii dama si war a adjust ma dem training ground ma rectify fa man noonu laa doon coaché dama dee wan ne I don't know xëy na laa ko of human resource la su gars understand suma English mooy comme comité bi maybe dafa niit adjustment si ay comme human resource lu ma miin comme nit yu bari ñu nekk fa jël ay different types of rules understand ñun difficulté si ñu daan gën a am mooy mai bi xëy na amoon nañ comme tout ay tout tri ñaari scénario la xaw ma benn suma memory suma savee right c'est mai bi si misinformation loolu la woon rek waaye ñun ak comité bi ñun ñoo war a join hand in hand du dëgg parce que ñun ñooy tiim suy dem play understand ñoom ñoo nekk ñu amee luwaa football bi yaa ngi maa yaa ngi maa ñun ñoo ñoom suñ bokkee benn jubluwaay rek dafa ne difficulties moom du ñàkka foo mun a dem di fa am yu métti di nga fa am yu nii football si boppam moom moo moom moo mel noonu ñun developing country leen si football understand waaye ñun tam comité bi si boppam moom lañ yaakaar pour si yu bëri ñoom ñu xamal ñu ko comme ñun ay ndaw leen ñu nekk si football am na yenn constitution yoo xam ne ñun dinañ ko xam. Hmm? ñun dinañ ko xam am na yenn constitution yoo xam ne ñun duñ ko xam du dëgg waaye ñoom ñu fa nekk ñoom mun nañu si di dimbale di ñu si soo green light bañ aaga fuñ war a aaga loolu la rek. waaw léegi-léegi xam nga man dalaguma si loolu man si li ma dal nii métti na moom si li ma dal ni comme fay eighteen thousand bi métti na trop parce que ñun spend nañ lu ëpp loolu eighteen thousand boobu spend nañ lu ëpp price money Amanda understand nga man prize moni bu ñu receive si uh, nawetaan bi at bi tiim bi at bi spend na lu ëppal loolu comme benn si prize moni bi bu gën a xaay laa la wax bu gën a xaay wow ma bu gën a loode FC Warriors prize money bu gën a xaay bu ñu nawetaan bi jox si Warriors spend na lu ëppal loolu moo tax mee la mbooloo mooy doy duma du ma fi siwal suma ba di la wax ñaata lañ spend mene la si Warriors si tey bii nii bi ma gis bu ma gis dispace ak bi nar a dem kanam dafa uti FC Warriors bi ma daan gis ana déglo mee la haaté ndo xàcceendoo dorandor ñun dañ am ñu ñu nekkal ci diaspora bi mang ngi leen daan nuyu au passage diko tek ci loho président FC Warriors bobu non comme ku nekk daf don def anam ba mu ne besi yoka, yoka gaay dinañ ma sétane si YouTube bi dinañ dégal li ma wax koko ci laaj dina la wax ne dégal man gars yi nekk di wax man nga man nekkuma si walum finance FC Woré dafa am ay secteurs comme ku nekk dafa amoon comme fuñ la fuñ la poste ku nekk dafa am sa liggéey man Kéba Senghor liñ ma santa mooy demal nga trainal ñu team bi nga pigal ñu eleven nga winal ñu man at bii loolu lañ ma sax at bii COP la ma gaay santoon COP lu gën a métti xam nga ngay dem uti dara doora guloo sax ñu ne la nga qualifié waaye ñu ne la da nga war a indi trophée wala dañ laa daaxa xam nga ne loolu yow nit ki nga ne ko dang ko koo daaxasi alalam su lu mu def dafa am jom am fula am fayda man bala nawetan bala qualifier rang ci di door xam man bi di door man tuma tim bi doro nañ training last year every time ma wax ko bala tim bi di door do nañ training te seen li nii sax suma suma players gisulo fi ken ñep jox nañ len individual training gaay commencé nañ début last week Wow, man ah FC Warriors man man du ma dee buy into that philosophy man xam nga laa gëm man su ma dee dem nawetaan man du ma dee bugg a comme lijanti tiimi jàmbur wala comité def na ma lii wala def na ma lii man dama dee wholly an solely focus on comme man di joob at hand comme li ma war a joob li ma war a def man suma concentration yëpp man si loolu la lee nekk man laa si nawetaan man dama doon ñib si kër suma sista ne ma xanaa yoo doo dee lekka ma ne maa ngee leka di mu ne comme man bi maag bi ni ma meloon balaa nawetaan bi door ak bu nawetaan bi dooree comme dafa gis différence ma ne ko différence si lan comme mu ne suma yaram baa doon jee ma ne ko waaw taski liggéey la rek soo buggee dara nga nekk si dara nga gonko donc man noonu laa mel man dama dee dévote suma boppa si li ma bugga man noonu laa loon doxalee waaye comme ay comité bi dañ am ay tiim ay team team yii nii man yooyu noonu man concerne man li ma dee concerne sooli moo nekk ne FC laa amal affaire fa laa suma ne kon ci benen team tam lol non lay demé parce que affaire football si fi nga nekk loolu rek nga du dega si loolu nga dé concentré on nga dem si soli man loolu la am waye comme ay né team comité bi dañ am team comité bi dañ am team ñan ñoy team bi bi ana ñan ñooy team comité bi FC Warriors team comité Ah, alhamdulillah yan nañ nekk timi bi suba FC war a nekk timi ñun yow more than 20 years yaa ngi trophy less timi comité du trophy less di boy loolu noonu méegul seen lan mooy timi comité bi ñun amuñ comité member foofu di ñun member buñ fa amoon nekkaatu fi léegi dafa tukki ñun ku fa amoon mu nekk fa member nekkaatu fi léegi dafa tukki soo léegi soo ma ne FC Warriors timi comité bi la xanaa léegi loolu fan la ko gaay bi naka la FC Warriors nekkee ah léegi naka la xaatoof ba léegi loolu dama nga dem dem nga laaj ko gars yi xaatoof Banjul ñoom xit na la si mun a war dara xaatoof Banjul nekk tiimi comité laas at yi yëpp gars di try di war a dem di ñaaka ay trophée tiimi comité waaw léegi lan mooy tiimi comité man question boobu laa war a ñu ñu toog rek ñu ne FC FC Warriors win trophée moo tax mu nekk tiimi comité déedéet FC Warriors win am it was destiny it was planned by the Almighty et ñun ñu def si suñ jéego yu mat sëkk rek to be successful is not easy yow yaa ma njëkk a jiitu si mbiri win cop yow mi ma laaj ni yaa ma si jiitu yow toog nga yow win nga cop win nga FA win nga lig win nga Super Cup I don't know dem nga ay final yow nga ma laaj loolu léegi nga ne yow ñun ñoo nekk at team commit te yow nga jiitu ma si loolu yow yaa gën a xam ne pour nga bi successful you have to work extremely hard. waaw ñun saa foo daan train London start training jeexal sap seven, more than 3 hours ci bij bi loolu métti na de loolu amna na football sa duñ ko mën understand nii naka di trainer 3 hours because liñ daan programme la niñ doon niñ doon demee la te nekkutoon mene la man Keba Senghor bi jiite comme man rek ko bëggoon lii nii comme naka la demal mais la lu ko ay mam si koñ bi fi. mu waaja si suñ papa yi mu waja si suñ yaay waja suñ anti susun suñ sista si suñ broda si suñ cousin si comme family member si ku nekk la la nan ni si anam boko halate, suñ fan si comme suñ halay jigen ni fans club bi ku nekk amna yow naka tulaate jego bum si def just to be victorious because dafa yagone wét bi mo longone rek du dara man na suñ best fan si nak at bi su ma ko joxe bari nañ de mo fi limere dafa dama djum man koku non duma ko fan moo ne nekk Ousseynou benn benn ndoo la comme ngi baala ma si kàddu bi comme yaa dafa def comme comme cëri ñoo mutut daal si olof bu gaata comme cëri ñoo mutut comme tànka yi ñoo ko dee distop waaye despite nu ko tànka yi dee distopé yëpp every day daf dee ñëw si bij bi training ground mais la players yu bari fii nii moom dafa jël tànkaam di leen motiver waaye trophée boobu noonu comme ñaari nit laa ko war a jox ak Seydou Poul borom Café Baye Fall man suma don jot trophy ñaan ñaan ñoñu la ko jox te suma ko joxee ñaan ñoñu nonu sax dina ko xañ ñeneen motam mene la amutoon naka ne ki la wala kele la yeb boy we, we are doing it under one umbrella du chaan comme lol that was the only secret lepp lepp lalawa, la wa suma fi nekké di lim sa dama djum te amna ay names yo xam suma ko fi doron comme liste FC wara ñima wara gërem tay ba elek duñ fi joggé te mun na la ba 50 te duma gak ñima wara ma war gërëm yëpp la law et paré ñun sa ba légui sa mëna guñ ta def lool comme jël trophée bi comme dugal ko kër tu kër because of ñu ngi nekk ci Covid 19 bi understand comme tok leen seen kër yi because ñun lool suñ ko doon def fokk ñu romba di required amane bu gaay wa comme social distance bi ni. waaw ñun lool yëm ñu ko doon plan pour dem kër tu kër yëp dem faa trophée bi wax leen comme niñ leen gërëmé niñ leen sante ma wax la benen advice ma delu wat mbollem loy def te amulen leen nekulen nekku leen benn yow bayal mbollem lolé na def te xàcceewu dor doran dor yow bayal waxuma ne lol nonu nekuton fi ci bir persévérance persévérance ku leen xam mooy ñoom dañ dé jubal dara waye comme at bi daf kom raw musu ne comme persévérance musuñ ta bi benn bi ati trophy bi ni du won ati trophy bi sa daf ci raw comme ñep di xàcceendoo di dóor soit so ñewan training grand man suma bopa sa dama daan am extra motivation la du dee nekk pression de because man pression man amatuma fu ma mun a yóbbu si àddina comme extra motivation la daf laa leer ne comme da nga war a liggéey liggéey rek moo am solo si nag loo mun a nekk si àddina bii nit a sportman being it a democrat bii nit an administrator bii nit yow si loo mun a nekka si loo mun di nekk laa si secteur bu mu la mun di fekk si àddina fekk nekku leen ah, togetherness di dem di xàccendoor di dóorandoor bro billaahi demal util leneen moo tax mee la at bii nii daf ci raw